gaay yu baax yi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon taxawu diine xew li ma ci fekke mën naa ci am lu ma xam li ma ci déggit maa ngi koy dégg ndax màggal gi nga xam ne boobu boobu lay wax màggalu israel bu arab di ñaar fukki fan tam xarit tey di ko euh, màggal ci Daaru Xuddoos tey di ko gën a wax màggalu Daaru Xuddoos yéen yaa màggalu say cheikh. kan yi nga xam ne cheikhul xadim laata muy dem dénk na ko cheikh Moustapha al Karim euh, nga xam ne euh, da ko ko fee bàyyil muy ab liggéeyam di aw waaram mu war a liggéey gannaawam. jële ko bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ dëgmal. di ashruna muharram di bés bi nga xam ne ci la sëriñ Touba Xaadimu Rasuul fanaan seewoon fii ci Touba ginaaw boo xam ne ab liggéey mat na gaa yu baax yi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon taxawu diine di taxawu humanité di liggéeyal yàlla sunu boroom liggéey yu mag fàttaliku leen dafa mënta ñàkk te mooy waral it yërmande sax ci xeet wi di wàcc di yokku saa su ne buñ noppee fàttaliku rek fàtte lépp te kon lépp raaf màggal gi nga xam ne mooy màggalu isruna muharram lan moo ko waral ak nan lees ko daan defee li fi xew li ma ci fekke mën naa ci am lu ma xam li ma ci dégg maa ngi koy dégg màggal yi mu fi def diggante 49 ak tey yëpp yàlla dogal na fekkee naa ko waaye la ma ci xam man ci sama xam-xamu bopp ak li ma ci dégg sama xam-xamu bopp li ci jiitu moo di màggal yi moom xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam moo ko digal mu Moustapha ndax moom xam naa ci sama xam-xam ak ci sama dégg ne ci yonent bi la ko jële lu mu waxit ci moom la ko jële moom moom la doon xañub tànkam ba lu mu def ci ci moom la ko jële waxit ci moom la ko jële kon loolu moo waral li nu dégg ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne ñu wax ne daana wax ne allahumma ij'al xayra ayaami yowma alxaak ah borom maa ngi lay ñaan nga defal ma bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajee yow loolee moo moom moom xam nañu ne nun moo waral màggal gi itam seexul xaadim digaloon ko seex Mustapha ndax màggal gi nga xam ne boobu boobu lay wax màggalu Israël bu arab di ñaar fukki fan yi xarit tey di ko euh, màggal ci Daaru Xudóos tey di ko gën a wax màggalu Daaru Xudóos yéen yaa màggalu say Cheikh loolu lu ci rek euh, daa indi firnde ji li nga xam ne moo moo ko waral ndax bi nga xam ne borom Tuubaa nekk na ci jaarim te toll ci war dëkkaari jeeg bu raw ah, sëñ Mourou Sarr dafa dikk mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne daal daal daal eh, sant yeet yoo xam ne ni soo ko defee di ma la ko diggale lii ma yor daa ko yëkkati teg ko ci loxo. mu ne ko loolu yeex faatu. waxtu ma ko defee. da nga jëli ba yóbbu ma Touba te bu dara yàqu mu ne ko fa dañ ko mu ne ko bu loolu jàllee Ah, jubaa ji nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi sa sallam boo sunu borom jox digal mu dikk wax googu sa bakkan boobu la jaral mu jàkk am mu ne ko fas ko sa rak yi nga bokk si bu ci kenn ak roko jëm daanu cib dënëm tamit aaju ñoo xam ne bar koo faj mu ko fas ko yéene mu ne bu nga wooteel ba bis fii fi Touba. dénkaan yi nga xam ne Cheikhul Khadim laata muy dem dénk na ko Cheikh Moustapha al Karim ah, nga xam ne da ko ko fee bàyyil muy ab liggéeyam di aw waaram mu war a liggéeyee ginnaawam bokk na ci ah, sëriñ bi da ko bàttalee woon jumaa ji ci liggéey yi mu waroon a liggéeyal ci kaw suuf te mu des te nga war ko yeggale ci la bokk bokk na ci itam ah, njabootuk boppam gi nga xam ne ñaari xaaj lañ def muy doomi boppam yi ak taalibe yi loolu tam dénk na ko Cheikh Moussa ngir mu taxawu leen gannaaw gi ndax tax am na taalibe yoo xam ne leen te yëggaleegu leen te Cheikh Moussa moo ko war a yëggale mu loolu weesoo itam dénkaat ko itam euh, jëmmi jëmmi boppam ji bu fi jógee ñu yóbbu ko Touba dikk ci lu bare bare bare amit nag <coughs> amit nag euh, leneen dénkaan loo xam ne ما ورال نك دين كان لولي نك لمو جلي ما يوغ نك ما ورال ما ورال ما قل جيني داف إن شاء الله تعالى عشرون محرم دي نعرف كيف نتام قريت دين كان لمو جلي لي ما يوغ ما السبب ما السبب ما ورال ني ماغال 20 محرم واجالكو بس بو تيرد بيغا خامني موم لا دغمل دي 20 محرم دي بس بيغا خامني تي قادم الرسول financé woon fii ci Touba ginnaaw boo xamee ne ab liggéey mat na ba sunu boroom lam ko daloon lépp mu war ko ko fay te mooy yaa ayyatu an nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki raadiyatan mardiyatan fadxuli fi ibaadi wa duxuli jannati moom mi nga xam ne dundam gépp min al bidaaya nihaaya fam mu ba fam yam lépp ci su ci boromam rek la ko def ak sàkku ngeureumal boromam radiallahu taala anhu wa nafaana bi kulliyatihi mu cheikhul khadim ndax waxon na ci beuyit ne man day def fasna yene di liggeel yonante sallallahu taala alayhi wa sallam tak la xasaay go xamne duma ko tekki mukk ndar du dañ ne ma aljannaa ngi ni ma jot ngeureumal yalla akhdimuhu ila dukhulil janna daril qarari wal muna wal minna bis bi nga xey nak ci la wujje boromam musawal ci Touba Cheikh Moustapha al Karim jere ko ndiarem andi ko Touba ci ndigalam te mu ko lu bari lo xamne gannaam lay mën am ta lolé bokk ca la ca gën a mag gën caa fés bokk ci yitte sëriñ bi gën a kawe mooy bu ab liggéey matee fa njaareem mu digal Cheikh Moussa ne ko nañ ma indi Touba ndax mébét yu kawe yi mu am ci Touba ak yéene ju kawe ji ak xam ne sama defal na ko mooy ab dëkkuwaayam bi mu war a sax ba faw du fi jóg ba mukk Cheikh Moussa soog a ubbi buntu ba egg fekk mu tëj am nañu ñu wax ne fekk nañu mu bind bind teg ko ci kawam mu jëlee mbind ma jàng ko lépp lu mu koy lu mu koy battale mu defal ko ko moom ci la ko def am na nag ñu ma ne am na ca lu Seex Mustafaa denc ko waaye am na ca loo xam ne moom wanewu ko ndax ndax di bañ bu ko wanee di bañ xoli taalibe yi nangu ko mbaa ñu am ñu ko bañ nangu te kon ku ko nanguwul dana doon sa sam nattu yow mal xiyaam mu denc ko waaye la mu ci yoroloon boppam moom da koo téye loolee nag indi gii Tuubaa bokk na ca mu ko defee ñooñee ko doon ubbil buntu ya wax nañu ma ne am ñu mu ca yónni wooloo leen sëñ Basiiru ndax boobu sëñ Basiiru booba ma nga njaareen te moom daa xawoon ak sëriñ bi mu ñëw dam ko xamalee la xew yónni na ko ci ay kilifa léeg-léeg nga dégg yóbbu nañ ko saxte dawal buur la fa newoon ñu di ko tudde kubaa nag yëgu ko waaye loola am na ñu ma ne wér yëg na ko ndax booba gouvernement français bi ñu yëgee ne sëriñ bi yéem nañu ci moom mbir ba ba ba ba ba indi ko jaareem seen boroomi xam-xam daf leen wax ne jëmmi doom aadama ji mu yor moom dana fi bàyyi ko kon da ngeen koy siwar ba bis bu ñu lay nee jëmmi aadamaam ji bàyyi ko na fi ngeen jël ko seet meneen pexe mu ngeen ciy def ba loola taxoon nag góor commandant bi féete njaareem moroomam yëpp moo ci ëpp garde ëpp ci ay jumtukaay ngir di ko wattu mu wooloo nag sëñ Basiiru ba xamal ko ne ko ñu woo ñu yëgal ko commandant am nañu ma ne commandant ñëw na fa sax ci waaye sëriñ bi xam ne loolu bu ko taalibe yi yëgee bu commandant dana doon ab guerre mu am leneen lu muy liggéeyloo commandant ba मुडी को लिख गए जापने मम का ना उग न करे लेगी मम दना बु बु बु बु असमान से ते दना की मना जो है निगलम मुसो को आई नित योनी लेर nee na ca maam na Daaru Musti ne ko sëriñ bi nee na nañ daje Tuuba nee na ca sëñ Bàkki bu seyit ak ñeneeni kilifa bi dara desut ma war koo jëlee nag jaareem andi ko Tuuba détail oto bi diwa ko indeeg diwa ko ànd ak moom ak yooyu yëpp man toppatoowuma ko woon waaye lii sabab ba su màggal gi moom nangoo naa ci làmmiñ sëñ ma doo mbere mu dëkkoon Taayif tey képp ku dëkk Taïf xam nga ko waa fi it wax nañu ma ne Cheikh Moustapha daana digal mag ña ne leen dee leen ko nemmiku ji ndax ba yàlla bindee àdduna ba tey dara ump ko fi man nangoo naa ci làmmiñam mu ne keroog bi mu jógee njaareem jëm si Touba ñooñu ñu tudde jundulaayal xaalib bi ne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ko gunge ak yonent yi wéyoon yëpp ñoo ko gunge mu ne ma loolu moo tax mu guddi googu te sëriñ bi digaloon ko ne ko bu guddi gi dellu see nañu fi dajewaat di ko fàttaliku mu ne ma ñooñee ku gunge woon ñëpp ñëpp ñëpp daañu dellu ci guddi gi mais isri na muharam te nee may am nañu ca jagle képp koo xaye daje nañ fee yow te guddi gi tax fee ñoom la nga weesu ci bàkkaar dan ikut far kalau moom ci sen man loo mbere laa ko déggee ci kon lol ci màggal gi jar na ku dëkkoon Amérique mbaa Faraas boo ko mënee nga di nga di ci ñëw ndax bis bi ko gënal bisam mooy bis ko gën a gënal ci bisam kon su ko wootee ne nañu fiy ñëw di ko fi siraay siyaare te ñooñu ko gunge woon ñëppit di di di di ko siyaarewaat si ci bis kon faratale ci taalibe yëpp yëpp yëpp ñoom it ñu ñu waroon di fanaani ca bis ba Cheikh Moussa def na ko ay at borom ki tax nuy màggal mu Cheikhul Khadim moom bisu boppam bi mu waajaloon ko bind ci wax ci jëf ci fàggu ci ndax gis nañ ci mbindam muy naan allahuma jaal xayra ayami yawma ma alxaak ca suba teel ba mu tàmbalee liggéey bi rek lañ gi Cheikhul Xadim mu jël xalimaam di waajal bis boobu yi muy bisub isrun muharram ma nga naan sun borom maa ngi lay ñaan sama dund gi ak nu di toll bis ba ca mujj na ma defal mu gën ca bis ba may daje si ak yow nag ma defal mu gën ci samay bisi àdduna ها لولي دارا لا خنا تي كيب اجي ساي خول خديم بيس بامو جابي نوني دارا لا لو غوري مانا ييغلا دو ني فاتي دو لو خنا بيس با دي اكسي ني ملني بيس ولا ييغي سوكو واي غيس نانكو تي سوباغا منان ولي جعل الموت راحة ومفرحة من كل شر وكرب داقي الله سن بروم ماغي لاي تيالا نيان nga defal ma suma liggéeyee ba bisub matul liggéey ba nay sama nooflaay di sama bànneex di sama mbég loolu moo ko bindal boppam kon loolu it lu mot a settantalaat la kon bis la boo xam ne Seyxul Xadim dafa jaayoon addunaam jëndee ko alaaxiraam addunaam jëpp ab liggéey la jaamu la ndax moo ne woon man zannani nii xayra xadimil Mustafa fa innani nii bi Mustafa axdimuhu ilaa duxulil janna daaril qaraari والمنى والمنى أدنى دوما في نوبلو دمي لجي المصطفى صلى الله عليه وسلم تي تول بيكو يالا يوني بكر نك ما يواتي بكر ما يتابع جنا الفيق نيني أجنا نيني دوما نوبلو دوما تكي سمك لخصائي كون بس بيغا خاني مو حصر محرم كي لا سيغ توا تيكي اك لخصايام ويرا كان وناكو فوبال سا بونغ تا ديم فنان ديغنتي كاو سرا جينان nokkil te lekk nag te naan jaajëf defar nga xarnu bi nottil te lekk nag te naan jaajëf defar nga xarnu bi keroog la Seyxul Xadim nag commencé door a noppalu door a bég waaye ci waajtaayu bis boobu yitteel gum ko yitteel gis nañ ci ay mbindam mu naan wax fas liyel jisma xaysu ruuxu faaraxani fil xabri laa tubliyanhu dëhra yàllaahu yow sama borom maa ngi lay teel a dénk sama yaram jëmm jii may liggéeyee muy ëllëer bi ak gob bi ma di ko liggéey ci tool bi saa buñ ci noppee ëllëer bi ak gob bii nag ma ko wattul aaral ma ko sàmmal ma ko te it bu mu ràpp mukk bu ko dara jot bu ko sax lekk bu ko suuf lekk bu ko dara jot nag ma ko sëñeel aaral ma ko sàmmal ma ko ba dugalal ma ko ci suufu Tuubaa sa nga wattu ma ko foofee nag muy dellu wax ci bis boobu ñor gum ko ñor ma nga naan wajhal ilahiya rasulallahi yahduruni inda nuzuhil jaahi wa inda dafnil dafnil jismi fii tubaaya sun boroom maa ngi lay ñaan bis boobee nga xam ne moom laa yaakaar moo tax may sonn muy bis mi daje yow na nga def yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi muy Moustapha na nga ma defal moom rasulullahi sallallahu alayhi sallam mu teew fi sama wet na ma wéttali na ma gunge na ànd ak man mook saxaabaam ya nañu ma wéttali nañu ma gunge jurbel ba tuubaa keroog ba nga may tuxalee daaru dunya di ma yóbbu daarul uxra na nga def rasulullahi sallallahu alayhi wa mu wit li ma ànd ak man na ma gàttandu si moog ya ànd ak man ba Tuuba ma nga naan sun boroom yent rek ak ya waaye nag ma defal sama juróomi xarit yi sama juróomi xarit yi na nga ma na nga ma leen xol ñu teew ànd ak man mooy kan ak kan al jilani Cheikh Abdul khadir al jilani al bustami Tayfur ibn Isa al Tayfur ibn al Ali al Ghazali Muhammad ibn Hamid al Ghazali wa ma'ruf al Karxi juróomi kuy diine yi na nga ma leen wooxal di samay soppe di samay xarit nañu ànd ak man gunge ma ba Tuuba mu daal di woote bagal gi di itinéraire mu arab ñaar fukki tamxar bi wax ne bii su accès fu waay ba de nag bu la dara gàllankoor ba ba teel dikk wala bu amee gàllankoor xam ne boo xam ne gàllankoor bu mënoo dikk it da nga jaar yoonu Touba ba dox ay jéego yu sori bu wóor ne am nga yéene dikk Touba boo ko rogee lu yooyu fay waa mag gi daaju la ko fay daañu wax ne képp koo xam ne dikk ba asamaan set na nga set wécceeg bakkaar set wécceeg bakkaar nag loolu yombut mu xey wolu señ muxtar job ca kawlax señ muxtar job nak ci dong yu don muritu señ bi lañ ca jamono yoya señ muxtar job mi ngi won dara ji ñu wax jam weli wala ko Cheikh Moussa yu bon mu nek fa di liggey waye fan yi mu koy wolu nak da fekkon ñom am liggey bu len señ bi def lo ci beyti ñi di ko fi def sëriñ bi nag xëy woolu suñu muxtaar ñaar gaawu ñaar ak juróom ci weeru tamxarit ci la woolu suñu muxtaar bo mi ngi bayti suñu muxtaar ñëw mu ne ko dama bëgg ma bàyyi ma samba bàyyi ma samba sëñ ma samba mbakke sëñ muxtaar ne na ma dem ko sëñ ma samba ñu ne ma sëñ bi ko daani ci tukki <coughs> ma ñëw wax ko ko wax ko sëñ mu ne ma toppal ma ko fu foo ko fekk ko dama ko soxla Baye Mokhtar tar na ma top ko diko ko wër di ko wër fu laaj ñu ne ma dañ ne béréb sangam diko wër wër ñaari fan do ko fekk luga fekk mu jul timis ba nopi bay def ay lawratam ma jot liko euh yóbban yonne bi yonne bi ma sëriñ bi li ma sëriñ bi yonne ma jot liko ne ko bi na soxla legi neena bi mu joge abutiram la war nee na man may dox topp ci gannaawam maa ñi mu àndal nee na boobu waruwaay yombut ay oto yooyu boobu yombut nee na ñuy dox ba agsi guddi lañ agsi Touba fekk nañ nit ñi tëdd nee na am na wén gu nekkoon ci jumaa ji ca ween googee fa la sëñ ma sàmba ak ña mu àndaloon fanaan nee man may itam ñëwuma dellu fa ma nekkoon moo ñëw ba ci buntu néeg bi ma jàpp fi la fanaan fi la Cheikh Moustapha fanaan mu tëdd ci buntu néeg bi nee na yor-yor ci la Cheikh Moussa ubbi yor-yor nee daal di xool jumaa ji seen mbooloo moom euh, sëñ Massamba ak mbooloo mi àndaloon foofu mu ne ma ñee ñum doon ma ne ko sëñ Massamba dee daa guddee ñëw aggul këram mu far fanaan foofu nee na mu fàtt su ñetti yoon ne ma demal wool ma ko nee na ma ñëw. fekk fa ku ñuy wax sëñ Baara Amar ak ku ñuy wax sëñ Ñombre loo nee na ma ne ko kay wu Cheikh Moustapha nee na mu ñëw sëñ ma sàmpa ñëw ak ñi mu agsee génn néeg bi mu nekkoon gàttandu ko ànd ak moom dugg ci néeg bi nee na maa ngi toog maa ngi taxaw nee na mu fàtt su ko lal bi mu jël loxoom teg ci daal di àgg suuf Cheikh Moustapha it àgg suuf toog ci wetam ñu jamanté ba nopi Cheikh Moussa lamb posam génne aw kayit bataxel jox ko si moussa sàmb jang bataxel ba ñu nopé ñom ñaar ne nañ tek gannaaw bi mu ko jang bo xone kenn waxut gannaaw ko Cheikh Moussa né ah lol loolu de bi ma koy ku bax ki jox bataxel bi booba day xana yow mi la ko seeraloon ndax Cheikh Moussa da génne bataxel bi euh, jang ko ba jox ko seigne moussa seigne moussa jang ko mu jox ko Cheikh Moussa Cheikh saa jàng ko bëgg ko delloo mu ne ko téye ko ba mu jot mu ne ko xanaa sëñ sëñ sëñ Moodu fàttali ko lool ne ko xanaa loolu de lee mu de xanaa dama ko xawoon a fakk waaye yegsi na mu ko xawoon na fakk nag mu ne ko xanaa ci at mii woon de mu ne ko waaw ci at mii la mu ne ko xanaa ci weer wii woon de mu ne ko waaw ci weer wii la mu ne ko waaw koy baax na muy mbégte mu kawe nag ci Serigne Touba fanaan si gim fanaan si Touba ñibbi si gim ñibbi si waltu kammil maana waytu la daa tuubaa fu baree bari tudd na ko fa ngir bëggum bëgg dëkk bi ak bëggum bëgg suuf si ak lu ko fi boroom defal xabli idaamata maa tuxibu wa tartadi fi maskan yi tuubaa nag ma may daal li nga bëgg te bëgg ko ko saxal te man bëgg naa lool ko loo xam ne dañ la koy defal ba faw faw faw fekk ëdd fekk ëddinaa ngi dox li nga gën a bëgg li li sa nek sa ngërëm lo a ma ñu dima ko defal fa Touba loolu motax mu ñibbi ci fi guddi goge mo fanaan see Touba nak mom la Cheikh Moustapha al Karim diglé né nañ fi daje di fi fàttaliku di ko ci jang alquran ak tuddu yalla ci xeeti tuddu yalla yépp ci xasida day Serigne Touba yi Cheikh Moustapha daf ko da wote ci jamono yoyaa ñëpp maase ko dib taalibe wala nga dib jullit mu maase woo ñëpp ñuy fanaan si Tuuba ci guddi googu muy guddi asiruna muharram bu nee ba ci fukki fan yi ak juróom-ñeent guddi bët set ñaar fukk mu wax ne Cheikh Moussa wax na ñëpp di fanaan si ngir bis bu nga xam ne sun borom defal na ci Sëriñ Tuuba lool mëne su ko wax am na ci loolu it xam mëne su koo xam mbaa boog ñëpp duñ ko xam waaye mu doy sëkk rek la ca la Cheikh Moussa daa diggee te mag ñi netti nañu ko ba tey fekke ko wax ni guddi la goo xam ne képp koo xam ne fanaan nga ko Tuubaa boo xëyee rek set nga wecc ci ay bakkar maanaam guddi la guy fóot ay bakkar da ngay mel ne kuy door gën a àdduna ndax sëñ bi daa ñaan ni ko yonent bi daa ñaan naan allahumma jaal xayra ayami yawma alqaaka yow yàlla yàlla na mu defal bis bi gën ci bis muy bis bi nii war daje ak yow bis bi ni dajé yow na doon bis bi gën ci suñu bis sëriñ Cheikh mbakit nafan nafaan la wax barakaat ko ci discours am am solo wax ca lolé kon bis bu gënal sëriñ touba la mo taxon Cheikh kon fonkoon ko woyon daan wo yoonu mouride bëpp daan ci diggé lu ne daan xamle it ne daanaka sax daa wut nangu ku am ngant ci baña magal ci si ndax daana ag ci bo démé sax ba mënatut a ñak ci ngant li nga seet yoon woo xam ne dëgg mën na Touba maanaam wet la Touba féete xib fan la Touba féete moo xam Touba dalaa féete penku wala soow wala gànnaar wala Saalum nga seet aw yoon nag dox ci ay jéego ngir barkeloo ko ci guddi gi ndax nee na bis boobu bu agsee mboolem malaayika yërmande yi mboolem yoon yi xibla yi yépp ñeenti xibla yépp ak kaw ak suuf malaaka yi dañ koy fees dell ngir du jéggalu doomi aadama yi ci barkeb sëñ Touba. am na muy naarub shérif boo xam ne dafay newoon ci ci kër gi moo moo jël xalimaam dal ne bismillahi rahmaani wa sallallahu ala sayidina muhammadin nasiha li jamihi al muridin sadiqin al mutaalliqin mutaalliqin bi asali seyxina al khadim maa ngi laabire mboole murid yëpp yëpp góor jigen jigéen mag ak ndaw ak laabire goo xam ne mi ngi jëm ci képp kuy murid aju ci seyxul khadim yàlla xam len ana cheikhana ahmad al moustapha naka sunu sang sunu sëriñ cheikh mouhamadul moustapha al mbakiyu xalifata abihi ki wuutu baayam di sëriñam ki wuutu baayam sëriñam wa waarisahu tey donoom zahiran wa batinan jamaa naasa moo moo masa woo mbooloo mi nit ñi murit mu dalee na masa woo zaata yow min benn bis mu nekkoon yowmal ahdi bisu dimanche bisu dimanche mu woo leen ca xadara Touba ku yaakaar Cheikhul Khadim na ma fekk Touba ñaar fukki guddi muharram yii di ñëw ci amahan sa mu taxaw ba ñëpp ñëwee ca jumaa ja ca pénc ma ca tabaxub jumaa ja ba mbooloo ma dajee ba dajee mu taxaw mu ñëw ci seen biir ne tëll ànd ak sëñ ma sàmba bàyyi tëxam bu tedd ba taxaw ci seen biir jëmm ja ak daraja ja ak leer ga lépp mate ko mu ne sëriñ ma sàmba bàyyi ma samba mu ne ko mbakki mu ne ko organiseel maanaam nosal liggéey bi dama bëgg nga tànn fukki ni fukki dongo ak ñaar ñu jàng fukki mushaf fukki kaamil la ñaar ci biir jumaay Tuubaa ji ci biir tabax bii nga xam ni mooy jumaay Tuubaa ji nga tànn fukk ak ñaar ñu wër bittib jumaa ji ku ne jàng fa kaamil nga tànn ñeent ñu mën alxuraanul karim nga tabbal leen ci biir rawdatu seyxul xaddiim ku ne féete ko ci ab xibla nday joor ak càmmooñ penku ak sowu ku ne toog fa jàng fa kaamil muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett mu ne ko limum ñaar fukk ak juróom-ñett boobu yi nag sirru seyxil xaddiim moo ci nekk sëñ bamba da cee lëm sirru bu ma ci déey moo tax ma santaane ñu jàng ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yi ci biir jumaa ji fi Cheikhul Khadim ak fi mihrab bi ak ci li wër jumaa ji mu ne ko nga tànnaat ñeenti kuréel bii na fanaane jës bu bii mawaahi bi bii muqaddimaat bii miimiya ñu fanaane ko ci ñeenti ko ñeenti xiblay jumaa ji nañ ko fanaane jàng ci guddi gi ba set mbooloo mi ci des nañ def ay sàppe ay kuréel ñii di xasida ñii di yëkkati sikrullaahi ñii di yëkkatu istixfaar ñii di yëkkati salaatu ala nabi ñii di nañ ko fanaana ci li wër pencum jumaa ji lépp ba set ñenn ñi nañu yor seen limub xaalis di sarxe ñenn ñi nañu ñaan seen ku ci am sa soxla na nga ko ñaan ku am loo mën a sarxe na ko sarxe képp koo xam ne am na lu dox sa digg sa borom na ko tuub te loolu na ngeen ko def ay géew ak i mbooloo ba mu waxee loola nag ba noppi Cheikh mustapha door a wax ne nag génne aw kayit dal di wax ca kaw ne innama jamaatukum hasal ijtimaa na ngeen xam ne nag maa leen woo dajali leen ndaje mii tey nit ñaa ngi fees dell dell dell pencum Tuubaa bi Cheikh mustapha ne ndaje mii jotaay bii taxawaay bii maa ngi leen ci fàttali taxawaay bis penc loolu laa ci njëkk a jublu fàttali leen ne penc mii nu ko amee ni la amee bisu penc ni la suñu borom dina boole taxawal lu ñëpp ci pencam ma na ngeen ko ci fàttaliku du jaas laare ba fii nee na du jaas bis penc du jaas ni nu taxawee fii nun ñëpp ci pencum Tuubaa mi nanu nuy taxawee kanam suñu borom bis penc ëllëg. Euh, bi mu fi làqoo nag mu Seex Musaa taxawoo ko noonu digle ko woote ko yoonu murid yépp di fi daje. مودي جانغلو اي قصيده دي القران اب اي ليم اي كامل اي ليم اي قصيده تام راغنيكو تقصيدة يو تي قصيده يويو جذب القلوب اك مواهب النافعه اك مقدمات الامداح اك ميميه يوي بوك نجي شيخ موسى دا جانغلو تي غودي بو بوت سيتي مو ديف وقتان ييغا خاني دي ديسكور بي دي دنكان يي دور يوي مبولوم من لاكو في نيكون بيم ديمي بنا با بايكو 1945 taawam bu sell ba du Ahmadul Mbacke Gaynde Fatma yàlla na ko yàlla fayal wutu ko ca loolee sàmm ko lool yokk ko lool taaral ko lool yëkkati ko lool ba dox ci dox yéen woo xam ne sax yéeme na ci taxaw temb ci bis bi ni ko Cheikh Moussa bëgg yoon mooy amee noonu te wéy te sax ndax Cheikh Moussa dafa wax ne bis bi bis la boo xam ne day wéy doonul bis boo xam ne daa am fu muy tàmbalee ak fu muy yem waaye daa war a wéy ba faaw. dafa wér war a dafa war a wéy ba faw sëriñ Cheikh Mbacke taxawoo ci noonu di ko woote di ko sàmm di ko saytu di ko taxaw mboolem xalifa yi Cheikh mu al Karim yi nga xam ne ñoo fi ñëw itam ñëpp kenn ko ci nekk nga taxaw ci taxawaay boobu yi dala ci sëriñ Mbacke Madina ginnaaw sëriñ Cheikh sëriñ Mahmoudan Xarilo sëriñ Aliou mbakki sëriñ Xaadim Mbacke ba ci kii fi nekk tey te ñaan mu yàgg fi loolu te wér di Cheikh Ahmadul Mokhtar ànd ko nag ak mboolem ñi ñu fi bokkoon na nekkal ci njabootu Cheikh Moussa gi yëpp kenn ku ci nekk buntu këram boo fa demee fekk bis bi ñor ko lool bis bi yitteel ko lool ñu daal ko taxaw di góor ak jigéen mag ak ndaw ak mboolem seex yëpp ba jamono yii nga xam ne nag Cheikh Ahmadul Mokhtar moo fi nekk tey jii yal ko yàgg taxaw ci barkeb Sëriñ Tuubaa muy bis bu mat a bàyyi xel. waaye kii di Serigne Mouhamed mbakki it Serigne Mbacke soxna Lo eh, amoon ci cër bu kawe ci bis bi ci nu ko daa taxawoo daayira di ko fekk ak mbooloo yi di ko ziar muy waxtaan ak ñoom di ko dundal dundal li woo xam ne bu wér a wér la ak di ci jëf-jëf joo xam ne doy na sëkk waxtaan waaye loolu lépp nag bi nu demee ba sëriñ Mouhamed ab liggéeyam mat. mu bàyyi fi kim tànn te doyloo ko lool te waajal ko itam waajtaay wu mat sëkk di Cheikh Mouhamadou Moussa Mouhamed Mbacké ñoo ko fi yàlla yàggal yal ko yàlla yu wéral yal na ko sunu yaatu ci barkeb Sëñ yàgg ci gannaawam Cheikh Moussa Mouhamed Mbacké nag moom mu gis bis bi gisiin woo xam ne gis wu sori la wu xóot la wu yaatu la ci fonk gum ko fonk ak jox gum ko jox cëram ak nag yóbbu ko fa séenu ko yóbbu foo xam ne fo foo xel musta xalaat la ngir sàmm ak ñoŋal loolee fii waajur yi jële eh, nekkoon ak la fa maam yi nekke woon ci digle guñ digle woon bis bi ak itam fasoo gun fasoo woon mu doon bis boo xam ne day yokk ba faw moo tax ci ginnaaw bi sëriñ bi làqoo ci 2014 Cheikh Moussa Mohamed Mbacké dugg réew mépp senegal ak bitim réew fépp rekk ngir leeral bis bii nga xam ne mooy bis bi sëriñ Tuubaa wàcce ab liggéey ngir fas yéene ko dundalaat gën ko yokk gën koo yaatal mu def ci tournée bu yaatu ci mil 2014 wër senegal ba mu daj dem ci bitim réew itam ci réew yu bari digle fa ne bis bii di màggal gi di di asroona muharram mi ngi digal képp ko ko yaakaar walla képp ku sa bunt Sëñ Tuubaa wala ko di soppeem wala wala réem fës na ko yéenee taxawal bu baax dundalaat ko bu baax yokk ko bu baax tëye ko bu baax ndax alal xalafi an yasuuna asaar salaf ba mu defee noonu tali bi yëpp wuy si ci bokk yëpp wuy si ci sopp yëpp wuy si ko ci ca noona la digle mbooloo mu tedd mii nga xam ne moo di ahibaul xadim li nusrati diinil xawim ngir nag ñu taxawu bis boobu yi di màggal gi ak bis ba ci sunu kanam dégg bisub gàmmu